auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen naafila guddik tey incha allah muy dëppook alxamis fanweeri fan ci weeru avril 2020 muy juróom-benneelu fan ci koor gi guddik tey mooy doon guddik juróom-ñaareel gi sëriñ bi dafa wax ni guddik juróom-ñaareel ga ku ca julli juróom benn rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatiha benn yoon ak alkaafiruun muy xul yaa ayyuhal kaafiruun ak sooratul ixlaas xul huwallahu ahad basaar wa jeex lu ci ne juróom-ñaari yoon juróom benn rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatiha benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon xul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon ne loolu ku ko def laaye ju ci ne dees na ko ca bindal aw yiw dana mel ni itam ku saraxe junniy diinaar te lum ñaan yàlla mu may ko ko te dees na ko ca bindal tuyaaba yu tol ni li mu bisi àdduna yépp xarafu ci ne it dees na ko ca tabaxal njënd lu rëy ca àjjana kon julli gaa nañ ko suñu borom man lo te ñu def ko te def ko nim ko bëgge mu nangul ñuko fulal ñuko ko ñuko fa yaq egul bi barakati sheikhul Khadim Yeah. هلا